some of some of these um, uh, viewers do not speak well I mean, do not speak English, so I would like to pass the microphone, before um, Sokhna Lala give her, her speech in English, I would like to pass the microphone to the president who really helped make this uh, happen, Mr. Mustafa Saho, to give uh, an, uh, a little something in Wolof so that for the audience that don't speak English. And, but it will be translated in English by Professor Pui, so Don't, don't feel left out if you don't speak Wolof. So we'll, we'll translate ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant ci turu Serigne Mamor Mbacke ak euh, kilifa yu tedd yu ñu àndal ñu jiital sëñ Cheikh moom sëñ Mahmoudan ak euh, Serigne Cheikh Gueye sëriñ Jigéew ak euh, suñu mbokku taalibe bokk ci ñi nga xamante ni ñoo nekk ci njiiti daayira New York muy sëñ Seex Mbaj ñëpp xam ko ak sëriñ Murtala ci ak nekkam ba fi mu nekk ren fu sëñ bi ñëw mu ànd ak moom ci liggéey bi di ko jàppale ñu ngi leen di sant di leen gërëm comme ni ko sëñ Lamine waxe woon rek nun ñi nga xamante ni ñoo waroon a ñëw te ñëwuñu moom ñu ñëwal seen bopp loolu ak cant gu réy war na ci ñi ngi ci yaakaar it nag ñëwuñu sax demuñu sax waaye nag la sëñ bi doon wax naan ñi nga xam ne dañoo jóge Sénégal jëm sarsaara ca Mauritanie di ko siyaare ngir yàlla ak yonent bi yàlla nañu mucc ci ay ñaawteef ci mucc nañ sax fekk gi mu fekk si itam di teew ne séenu ci loolu yàlla na nañu yàlla nu nu ci loolu yéen ñi nga xamante ni yéenay saa bu ne bu ñu wootee yéenay ñëw boole seen alal seen temps seen xalaat yu rafet ànd ak ñun ci liggéey bi ba mel ni bu ñu waxee tudd Moustapha wala keneen waaye yéen ñoo ñee toog ci kaw yéen a def lépp ñun dañoo nekk ca dañoo nekk ci kanam rek waaye li nga xamante ni mooy positif bi mooy yéen kon yàlla na leen yàlla fay ci taxawaay bu rafet ngeen taxaw ci dara warulu ko lu àqi islaam àqi dëkkandoo ak àqi mbokk kon yàlla na leen yàlla fay lu fa kawe seen njort yàlla na def yàlla guddi gi yàlla def ko muy liggéey bu ñu nangu ci daraje sëñ bi sëñ bi ñu ngi lay sant yooyu di la ñaanal xam nañ coono yi metti na waaye lépp yaa ngi koy def rek ngir bëgg lu baax ak taxaw fi nga xamante ni fa la sa kilifa gu baax a taxawoon kon yàlla na yàlla dëgëral say tànk dëgëral ko ñi nga xamante ni ñoo mel ni ñoom it ñi itam ci yoon wi ca di ko defee nii ci daraja yi sëriñ bi kon ñu bañ a yàggal wax ji ñu jox sëriñ soxna Lalla mu waxtaan bu noppee ñu doog jox conférencier yi am naa toogaay bi kii ne waaye nag li ñuy koy defe jar na ko kon jërë ngeen jëf Thank you very much, uh,